président de la république nous mu initiative Nous avons wax ne daf ñu ci fekk ñuy lu initiative bobu ba pare di def appel à tous les cadres à toutes les populations à tout tous les habitants du Sénégal que vraiment initiative président de la république bi pour ça parce que suñ ko défé rek dëkk bi dina set gox yi dina set réew mi dina set. canal bi déjà euh, nous population on a commencé pour def ko mais dina tollu am liggéey yo xamné il faut que l'État ñëw jàppale ñu si parce que dafay laaj benn technicité boo xam ne par exemple parce que canal bi dafa am ndox comme par exemple si on avait des ingénieurs de de l'ONAS am ay ingénieurs yoo xam ne ils sont de l'Eiffage dañu ñëw pour jàppale ñu pour xool comment drainer parce que ndox bi dafa war a jàll pour dem si géej en ce moment là ñun daañu mën a aménager on a besoin aussi d'un aménagiste parce que fii la chance qu'on a on a un espace qui est en face de la mer c'est un espace boo xam ne suñ ko aménager ko de ko espace vert vraiment les populations pourront en bénéficier. li nga xamante le moom la ñu sumb nii dañu am éveil de conscience que ni alors ñun waa dëkk bi d'abord dañu fexe nekk ci action yi alors li ci li ñu que fekk que ñu ci parce que béréb bii nga xamante ne song nañ ko dafa euh, au bord de la mer mais également ci côté ay cimetière mu donne espace boo xamante en tout cas pour nous atteindre suñuy objectif dinañ ko mën a exploiter euh, de mille et une façon différente mooy lan mën na nekk parking mën na nekk terrain de foot mën na nekk en tout cas espace boo xamante ne population yi mën nañ fi ñëw di féexlu di doxantu. mais dañu war a enlever mbalit mi dañu war a def rembale dañu war a en tout cas curer canal bi parce que dafa nekk ñaari problème yu daje mooy ay ay déchets ménagers muy déchets solides ak déchets déchets liquides mu doon loo xamante ni peut-être euh, euh, problème bu rëy la par rapport à nous, en tant que population nous, war ko donc nous, si euh, autorités yi nekk mais également ñi Depuis l'appel de Djamniadjo ici au niveau de Rufisque les actions se mènent pour avoir une bonne euh, salubrité. Alors ces actions-là sont menées par des conseils de quartier. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le conseil de quartier de Djokulkao. C'est Michel Moussa Diop, un jeune de Rufus et qui presque tous les week-ends se déplacent pour venir participer au nettoyage pour renforcer la salubrité des lieux. Nous avons également euh, d'autres que le président du conseil de quartier a cité, mais moi je magnifie le travail. Et nous sommes vraiment en plein dans les mille par rapport au nettoyage. Si vous regardez ce site-là, il y a un mois, certainement vous ne pourriez pas y passer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est possible de venir et de mettre sa note et de se reposer sur le site.